برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان أي طالب موريتاني ولا يغرنكم كسرة مفاخر آبائكم وأجدادكم فأصل البول ماء طيب صافي sama baay amoon na lii sama maam lii la loon amoon nañ ay puukari ci jamono def nañ lii def nañ ay nangam bàyyi ne bu loolu bu mu leen nax ndax saw saw wi nga gis ndox mu teey la woon bu set waaye ko ku nekk rek sa saw saw bu la laalee nga fomp ko bala nga am jàmm te cosaanam dafa selloon kon nag mu ne sama cosaan dafa sell rek tekkiwu dara duul yëf yi chance la boo ko boo boo buggee boo sellee ko moom parce sa cosaan li ko jox tagg rek mooy sell bi rek boo sellee comme cosaan bi rek sell nga boo sellut cosaan bi dafay dem yow tim nga dem ndax li yàlla wax nuuxu alayhi salaam innahu laysa min ahlika innahu amalun gayru saalih bàyyi mu ne ci loolu moo tax neenal yar sa njaboot mën naa dagg askan parce que bu demee ba ci ko doon yar wàjjur wi baax maam ji baax te njaboot gi baaxul mu ne askan bi dagg loolu tim ku ko xam da ngay a baax rek waaye asabiya lu bëri lu muy indi fitna la maa gën diw diw lii man lii man laa boo defee moom itam boo gis boppam bàyyi dafa wax ne ku bëgg a noonoo noonoowal sa bopp bakkan bi mooy noon bi ku bëgg a xeex xeexal ak moom yakunu lillaahi yakun lakum لا تخافوا بالله لومة لائم وليكن كل أحد منكم سليم القلب ليس به حرج لا يكن لا يكن لأحد منكم عدو من الإنس والجن إلا نفسه التي بين جنبيه ومن أراد القتال فليقتلها ومن أراد العتاب فليعاتبها فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ولا ينافي ولا ينافي تنبيه الأخ أخاه لأن المؤمن مرآة أخيه بايدا بين بين لي تراي تعلم من لين نك لين اللي الله يلا نه لين بولين رجع صح شيء الله كلين يد كن نشيء ينجب نعين سلا سن خلي بولين شيء دف أي مانيل كن نشيء بوم أم نون شيء نيني ولا شيء جني لو ما يبقى نبي bu ci kenn ut noon ci nit mbaa ci jinne lu may sa bakkan bi nga xam ne yàlla dafay wax li lay musal mu lay wax li lay toroxal kooku mooy noon bi dëgg-dëgg bàyyi na ku ci bëgg a xeex xeex la ko <laughs> ku bëgg a rey reyal ko tuubu ila baariikum faqtulu ko ñoom loolu ci nit Moussa la wàccoon buñ daan tuub dañuy rey seen bopp ay jaa ngi wax ummatu muhammadin ba léegi waaye mooy nga jeex ci yàlla ba bakkan bi dootu am ci yow jeexit bu amatu ci yow jeexit dootu la contrôler loolu tax ibnu farid doon wax ne ha anta in takun sadiqan muti yaa ngi dund sacc sa sa ba bakkan bi ilif la boo fekkee wax nga dëgg rek dayal na bakkan bi de bàyyi ne bakkan boobu mooy noon bi kuy noono noono texe ñeexal na koo xam ne sa ayib yi soxlaal na la walis ayib nit ñi mu ne loolu tekki nag nit ki gindi mbokkam bu fekkee nekkul ci lu yoon ndax lu yoon sallallahu alayhi wax ne ku gëm yàlla ku gëm yàlla mooy seetoom seetu li olof yi di wax ne sa doom sa doomi ndey moo lay wax ne sa bët bi sa gémmiñ yi xasoon waxuloo ko pour xasa dafa wax rek pour ñeneen ñi buñ ko xaytu bàyyi wax naa ne na duuru ma alxaqi ولا نعبد ولا نخشى ولا نرجو إلا إياه ولا نعادي أحدا من خلق الله لكننا في غنى عن كل مخلوق مهما حدثته نفسه أنه كذا وكذا فنحن سادة الملامتية فالملامتية من ملام ومن صح حاله مع الله فلا بد له من ملام ولا يخافون في الله لومة لائم nee na رجلين آمن يا الله رجلين يا كاب يا الله رجلين يا رجل, ونونوهن كنش من في علينا ولا نعادي أحدا من خلق الله ستلول نونوهن كن من في علينا لولو بايوا وينك دويلو نجي من ديف بوم نك لوكو بكانم غا مانا گمل نكو ياي ديو ياي نانغام ياي نانغام يا تخ نيت ني دودو يا تخ نيت ني دي لك كون كو واخ دنج لاي نخ واي نيون گمون كوكو mu ne ñun ñooy sangi malaama téetu malaama téetu ci suufiyanke yi ñi ñuy wax ñooy xam ne dañuy bu seen maqaam mën nañ def sax ragaluñ tim ku leen yedd bàyyi na koo xam ne sa xaal ak yàlla dafa wér force nit ñi yedd la daañ la waaye waaye ñu seen xaal wér ci yàlla tim ragaluñ ci yàlla yeddaa ngeeg aji yedd waaye baatab wala nu aadi ahadan min xalqillah noonoo mbindeef yi xam nga bokk na ci li indi xëy àddina yëpp politique ngir intere rek bokk na ci li indi xëy àddina moo tax bàyyi ci dénkaaneem barhamu baun waraun alifun thumma ha